dama bokk ci ci ci nga xam ne maay woon ci oto bi parce que oto bi 44 bi maa ngi ko jëloon Padois juste mais bi ñëwee bi oto bi doyee ba ci pont foire bi bu bu yéegee bay wër bay waaj wàcc ci côté kii bi mooy ci passerelle bi ci arrêt bi moment boobu da doon jëkkante ak beneen 44 bu nekkoon ci ginnaaw boobu mu daw vitesse boo xamante ne parce que diggante boobu noonu ak ak ni mu jégante vitesse bu mu fa daw waru ko woon daw vitesse bu garaaw ci la jékki-jékki rek raté contrôle laal kii laal frein yi frein yi dagg oto bi noonu lay dawee vitesse boo xamante ne ñun ñu newoon ci oto bi porteurs yi mën nañ sax yuuxu yi soxna yi doon nag ñëwoon ci biir ak yenn góoru yàlla sax yuuxu yu métti lañ doon yuuxu mais man moom yàlla daf ma dimbale ma man lu gisee lu ma jaaxal Serigne kese laay tudd Serigne Saliou oto bi noonu lay dawee di mbëkk bu mu yegsee ba ci arabi juste fa la fekk euh, Jakarta bi taxawoon ak ak ak ki mu supporté woon ci la jaar seen kaw bi mu mu bi jaaree seen kaw ci ay maa kenn ci bopp yi dafa xar dafa dafa tas mais man ki ma gis moom mooy ki ki mu lonkaale woon di daw ak moom boobu maa ñu woon ci oto ngi yuuxu mais soxna yi fa noon góor yi am gis naa ci ñoom ñun oto bi dafa noon këpp ñun moom yàlla moo ñu sutura oto bi dafa noon këpp man woon ci bi boo bi verre bi tojee hmm. gi derrière bi moo toj moom moo moom mooy dagg bii nga gis nii dafa dafa commencé tane sax mais da doon xel deret bu bëri bëri bi bi verre bi toje gaañu gaañu kese laa ci am heureusement mais verre yi moom dama am sutura yàlla mais verre sama bëti la noonu parce que bi mu bi mu mbëkkee ñaari kii bi bi mu mbëkkee euh, kii bi cag bi hmm. après dafa romb zaaru poto weñ bu ne foofu ci la mbéjee poto weñ bi après verre bi toj verre bi mu tojee si la xottu bi tey wàcc sama ko si laa jékki-jékki gis sama tànk bi dagg bis bi man euh, su su man ci li ma gis man kese maa ci man kese maa ci dagg maanaam vitre bi moo toj moo vitre moo xam man nag maa nekkoon porte derrière bi mu laalee kii bi mu mbëkkee benn poto weñ bu noonu kii bi bu mu ko brosé ci la ci la xotti butéel la ñu sama kaw suñu su oto bi dafa noonu këpp oto bi da doon dafa raté di daw maanaam da doon balaas fu ku mu romb benn am na gis nga taxi kii taxi boobu nga gisoon ñu tànc foofu nag moment bi mu jaaree ci kaw ñaari euh, borom kii euh, cag bi ci la dem tànc taximaan moment boobu rey na kenn ki fii kenn ki mu ngi koy diri yóbbaale ko ba fi oto bi ñun oto bi yàllaa ko taxawal mais ki xam ñoon ñun dañoo naloon dawa bi këpp wala ñu dal ci dara ma la waxee dëgg jëwli wax dëgg yàlla moom képp kuy mat waxuma la képp kuy kuy xëy di jël tata sa xel dalatul parce que yow li ma wax ni barke demul accident démb laa jóge laa laa jël 35 bi jóge ak Padois mais billahi diggante Padois ak ak ak Foire man dama jug sax te àll ne ko soo sëñ bi ma ko da par force di ko dawal wala ñu ñu wàcc dem gendarmerie mais tata yi ni maanaam dawalu maa tey maanaam police ak gendarme ñuy liggéey de mais le fait que ñoom bu ñuy demee bu ñu dawee ba gis police wala gendarme dañuy dañuy wàññi dañuy dawal tranquillement bu ñu leen rombee nag def bi carrément bu muy def benn instant am na bulletin bi ñu ne ko sëñ bi yebuloo ay xar ay nit nga yeb mais ñoom dañoo am jikko joo xam ne gis nga ñoom bu ñuy bu ñuy def seen yëfi maatay boo wax xool boo waxee bu ñu waroon bàyyi sax dañ koy gën dañ mel ni ñuy ñaawal askan bi dama xamul ban formation lañ leen formé man dama xamul ay nit yuy taxawal la ñuy jël indi leen ñuy dawal ba pare respecte waxuma la mais indiscipliné bi ne si ñoom rek ah muy muy chauffeur bi muy muy muy saa saa ñun ñàkkee la kees xamuñu mag xamuñu ndaw maanaam état bi rek laay ñaan surtout nag président jo Bassirou Diomaye Faye lii moom tata lu mel ni tata Carapet Ndiaga Ndiaye non ñuy ñaan yàlla dañ ñun dañuy sàkku ci moom mu jëlee leen fi parce que tata yi moom li ma gis moom tant que jëlewu leen fi dafay gën yokk